wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam wali habil mustafa xayra shiyam mbokk yi ñuy seetaan fi di ñu suivre fu ngeen mën a ne ci àddina bi gannaaw bañ sante suñu borom tabaraka wa julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen nuyu kenn ku ci nekk fu mu mën a ne ci àddina bi di la wax asalaamualeykum di ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal mottali ay naalam mottali mbooleem ay yéenam ci barki Cheikhul Khadim mbokk yi ñi ngi war a àndaat ak yéen beneen jotaay ànd ceeg boroom xam-xam bu ñu xam di gëstukat waaye di bindkat muy Serigne Moustapha Diop Ndar di jàngalekat itam ñu war a waxtaanee moom lu am solo loolu mooy lan loolu mooy yitte ju kawe ñu koy wax alhimmatul aliya lan mooy yitte ju kawe loolu ci lañ war a dugg ak moom ci waxtaan waaye laataa ñuy dugg ci waxtaan yi dañ koy bàyyi mu nuyoo Serigne Moustapha ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Omar Sylla ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyoo équipe bi nga àndal nuyu waa kër gi yëpp di nuyu Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne moom lañ fekk fii ci barab bi tey pour njëkkanteeg waxtu wi rek Cheikh Moustapha suñu waxtaan tey mooy yitte ju kawe ku ne xam na ne nit fu mu àgg yitte ju kawe moo ko fa àgg la rawatina ci lu baax ndax yàlla xamul góor xamul jigéen dana na ku def lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen nga yitte ja dong laay fay ci laa lay sukkandiku ba fay la sëñ Moussa ba ñu doon dikkal ci yitte jëmmi yitte ci boppam mooy lan ana lan nga ñuy wax ah, jërëjëf euh, yitte Jurjaani mhm. ci téeréem bu ñuy wax at taarifaat mhm. nga xam ne mooy xamle terminologie lan lañ ci jublu mhm. ci fànn gu nekk dafay wax ne yitte mooy xool boo xam ne dafa buur ànd ak volonté bu mat sëkk jëm ci yàlla boroomam mhm. boroom xol boobu li ko tax a jukk mooy bëgg a am ak mat fa yàlla mhm. gis nga xol mooy euh, suux wi ci doomi aadama nga xam ne euh, li li ci doomi aadama lépp luy baax ci mhm. xol bala aju luy bon ca xol bala aju xol boobu nag nga xam ne moom lañuy wax arshu rahman arshu rahman mooy kera bi yàlla boo xam ne ci lay wàcc saa bu jógee nag volonté bu mat sëkk jëm ci boroomam bàyyi lépp ngir wut ak mat ci yàlla koo ko mu yitte ci ngirum tasawuf ndax terme boobu euh, terme tasawuf la jërëjëf Cheikh Mouhamadul Moustapha ci yitte ni nga ko leeralee euh, suñu ñaareelu laaj jëm ci yitte ba tey gannaaw bi nga ko leerale ba noppi ñu war a waxtaanee yitte nag ci jenn jëmm muy Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mënee su la waxtaanee yitte ci jamono jii rawatina màggal te ñu waxtaanee Serigne Touba ak yitte li tax mooy fu mu àgg tey rek yitte moo ko fa àggale ak pas-pas bu dëgër sëñ Moustapha ba ngi doon jàngatal yitte ci jëmmi Serigne Touba ak njàngaleem ana lan nga ñuy wax. xam nga noonu ma waxee ne xol bi ci la lépp aju. Mhm. fu xol bi jëm rek. Mhm. cër yëpp dafay jëm. Mhm. Serigne bi nag yitteem dafa rëy. ndax wax nañ ne mas nay waxtaan ak mag ñi ba mu yàgg mën leen ndax asamaan si mooy asamaan si daan tiim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala dañ koo soppi mhm. ne ko ah, Mbàkke day yaakaar nañ ne asamaan si kay moo ko daan tiim ko mu ndax suuf si mooy suuf si nga xam ne ci la ko tedd ki daan dox ak tànkam bu tedd ba wala suuf sa dañ koo soppi mhm. ñu ko am Mbàkke jàpp nañ ne day suuf sii moom la daan war moom rek kenn soppiwu ko mu mhm. ngi leen ah, kon nag mi ngi noonu dara jógu fi mhm. lu waaye amul ci yàlla yitte moo ko ko xañ xam nga koo xam ne mi ngi déparé diggante asamaan soosaa ngi fi mhm. suuf soosaa ngi fi waxatuñ sax ne bu nekkoon Madina mu ne Madina mën na war mi ngi nii dëkk ma wala xabroom baa ngi nii fiñ ko denc wala sax alxuraan jëm fi indi mi ngi nii wala xadis mm. dafa jëlle la loolu moom dafa mën teg tegtaloo yitteem àgg na ci su gis lu woon yooyu yëpp te asamaan ak suuf ne fi te kii moo ko daan tiim kii kii la daan war doy na sëkk moom mu dox jëm ci yàlla te lu bëgg ci moom na ko allahu akbar kooku yitteem kawe na dëgg la sëriñ bi dafa bari la ko màndargaal dëgg gannaaw nag tawfiq suñ borom ndax suñ borom allahu yaalamu xaysu yajalu mm-hmm. risalati sam mm-hmm. borom am na lum namoon ci moom loola waajal na ko ci moom waaye gannaaw tawfiq boobu bu jàllee dafa fekk it mu sosoo ci ñaari waajur yu baax yoo xam ne jëmbët nañ ci moom yitte ci ndey ak bàyyi ñoo xam ne bokk ci askan wu te askan wu tedd askan wu ñu xam ci diine ci jàngale ko ak jàng ko ak di ci yar ñu yar ko nag ci yitte bayt woowu bu seyri di wax di bay wa yonent sallallahu alayhi wa sallam sëñ Bachiru andi ko mhm. alifa nuska mhm. wal ibadata wal xalwata tiflan wa mhm. hakaza nujabaa dafa na joneet rek moom sëriñ bi sallallahu alayhi dal di miin xam lool lu di ak jaamu yàlla radiyallahu anhu bëgg ko lool di ko defit jóg rek dal di miin wéet digganteem ak boroomam génn nit ñi ak yëngu yi te booba gone gu la kooku ah tàggat la boo xam ne yar la boo xam ne milieu bi mu sosoo ñoo koy àggale ci moom ndax al baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbi eh, milieu bu set bu sell la fay génne ku set ku sell lay doon sëriñ bi li mandargal yi ci ak dundam bari na ba mu jógee ci ndawam googu di wut xam-xam wuti na yitte joo xam ne mbooleem ku euh, moroo ma nag moom di wut xam-xam xam nga ne ëppale na la yitte ci bind téere yu mag yi di ko bind ci loxoom yi dox ay kilomètres di ko jàng wax nañ ne daa dem fi barab fu sori di fa bind ëpp téere dem njaañ jàng ko fa ci naar bi wax Abdul Karim Daymani mhm. dellu Pataar nga xam ne fa la waajuram nekkoon ci triangle boo xam ne bu sori la ci ay kilomètres mhm. Mhm. waaye moom ci boppam wax na ne mhm. Cheikh Ahmad Bachir mhm. net li ko ci minal bayal xadim mu wax ne muy wax ba mu wut xam-xam ki ban yitte la ko wut mhm. ba wax ne day ba ma koy wut yitte ji day kenn dong laa ko nirooleel ku ñuy wax Balla Maam Touré Balla Maam Touré ca Lappe waaw ci Lappe Lappe Touré ndax moom laa daal niroolu yitte waaye nee na fi ma ko raw mooy ci sàmm Allahu akbar jëfe li nga xam ne xam na ndax it xam-xam jëfe da koy yokk wattaqullah wa yuallimukumullah dëgg la si yut xam-xam te loo ci xam jëfe ko sa borom da lay yekkeel benn xam-xam boo xam ne xam-xamu diraaya lay doon mhm. kon gis nga moom ci boppam natt sax sax yittiyam ak ñi mu maasandool doon wut xam-xam mhm. waaye it xam na ana lum mu leen ëppalee mhm. te mooy li xam-xam bi jàngale mu tënku ca strictement ba tey bokku di li koy mandargaal bi nga xamee ne wut na xam-xam ba li ci ñëppi am mu am ko ci mu jóg di wuti amal al ilm wal amal te mooy amal mooy jëfi mooy jëfe xam-xam bi dëgg la te mooy yitte bëgg a ci yàlla loolu yi togg na ko mu wër réew mi fu mas a dégg yàlla dem na fa moo xam kookaa ngay dund ci kaw suuf moo xam xab xabru baa fa nekk waaye dina fa dem la ci la demee ba dem ndar ci ku ñuy wax góor googu yàlla gu mag gu ñuy wax maam askamara dëgg la mu doon ku ñu ku ñu digg ci wilaya tarixul xadriya mu jóge ca dem ba Mauritanie ca boobu jamono fa lay waxee ne wal jultu bayna al ulama wal awliya bi niyati wa xawliya ne wëndeelu naa ci diggante boroom xam-xam yi wëliyu yi ànd ak sama yéene ànd ak samay pexe ànd ak sama kattan ngir bëgg mboolem lu na fa ñoom ma la ko ba tey lii mandargal yi téem gannaaw wëndeeloom boobu mhm. nga xam ne ci la doon wuti yàlla mboolem azkaar yi yi nit yàlla yi jëfandikoo pour dem ci yàlla borom bi mhm. mboolem aw yi di wirdi yi jëfandikoo pour dem ci borom bi mhm. dem na ba nga xam ne lenn lu ci nekk lañ cay am am na ko ba noppi mu des ak jaaxale nag gune ci moom mar moo xam ne dafa mel ne moom naanagul dara hmm. foofu la futtikoo jëmaat ci yàlla boroom weneenu xel ci jitte ci nga xam ne soo demee ci xës daam gi nga xam mi ngi ko tënkee arafi abatasaja da nga fekk mu fabuwaat di sant yàlla nag di tuub ci lépp lu wees lépp lu masalaal ca xeetu lu ñuy jaamu yàlla di ci wut ngërëmal yàlla di ko topp ba àggali ci sa boroom te lu ci nekk topp na ko ba fañ yem mu yem ko fa waaye ba mu àgg foofu dafa sampaat aw xelam fetli la xasaayam tuubaat gi neen tub gu yees jaayante waat ak yàlla borom bi nag jaayante mu rasulullahi ci def ko ab sëriñ ci weesu mboolem sëriñ si nga xam ne jaar na fa ñoom ba noppi fa la wax ne ubaayiul yawma al mustafa bi xidmatin wa asalullah alafa mm-hmm. bis nag tey jugu naa nag jaayante nag ak sama sëriñ mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mboolem awraat yeeg yooyu yëpp te nga xam laq na lañ cay laq mu weesu ko nag wax ne uahidul yowma ala ahadil kitab bi xidmatin lil Mustafa babi sabab bis na ko tey nag maa ngi jaayante ak yàlla ci nag fas fas yéene téye téere bi mhm. def ko muy saba wérd kitaabuka al azizu saara wirda mhm. tey bis na naka tey sa téere bi laay def sama wérd kon gis nga yeesal na pas-pasam ci yàlla mhm. fabawaat mhm. tuub na mbooleem li beesu mhm. waññi ko jaata jaayante sallallahu alayhi wa sallam def ko sëriñ fab nag def ko muy wirdam dëgg nga seetlu keroog bi nga xamee ne 1883 euh, gannaaw bi waajuram wi laqoo te gannaaw bi mu fàggoo xam-xam nekk ab jàngalekat nekk ni nitug diine koo xam ne fu gaañu yegg yegg na fa ba waajuram wi làq 1883 mhm. bis la génn ci ëttub daara ji mhm. def déclaration boo xam ne historique la ci la mhm. lépp soppi ko keroog la wax dongo yi ne leen koo xam ne jàng kese moo la fi indi woon jàng kese jàng xaraf yi man ngaa dem ndax jàngo yi bari na koo xam ne que yoon wii ma xàll bëgg cee dox moom nga bëgg kon dikkal ñu ànd booba fekk na boroomam ne ko rabbi asxaabaka bil himma mhm. wala turabbihim bi dersi faqat mhm. ñi ànd ak yow mhm. na nga leen yar bis naka tey ndigal li mooy na leen yar ci himma yitte waaye bu leen yarate ci am jàng kese na nga leen yar ci himma waaye bu leen yarati ci am njàng kese keroog nag la def déclaration boobu ñenn ñi dëkkoo des ñu baree bari dikk ko mel ni ñu gëlëm ñoom dañoo dem nga xam ne Cheikh Ibrahima Sarr euh, ku mel ne Cheikh Massamba Diouf Sam ku mel ne Cheikh Adama Guèye ku mel ne Cheikh Assane Ndiaye keroog nag la ñu ànd ak moom nag mu tàmbalee xàll yoonu murit te murit nekk mooy irada mooy volonté murit mooy maanaam koo xam ne nag danga nga ak yitte ndax wax naa ci njël mi ngi ne yitte mooy koo xam day buur ànd ak iraada mhm. pour jëm ci yàlla boromam gis nga kooku ba tey di feeñal euh, ba tey yitte ci ci dunduk sëriñ bi mhm. euh, naka noonu euh, sëriñ bi naka jëkk lu noppale mhm. ak lu nooy ak lu yomb mësu cee nekk te mësu cee nekk lu wax nañ ne bis toog na ne ci néeg bi dégg taalibe yi ci bitti xam nga tubaarkàlla taalibe yi bi ñu wéetee seen waxi taalibe <laughs> di wax daal seen i mébét ak mhm. bëgg-bëgg sëriñ bi toogam yàgg ma fëgg barak bi ni leen lu baax kum ku xam fu mu nekk te am ak te ànd ak coono na fa dem man ahmadu xaw ma ko allahu akbar sëriñ bi dafa wax ne gannaaw may wax ne gannaaw bi mu jaaree fi mu jaar lépp te lépp di coono mhm. ndax li ko tàmbalee 1895 ba 1927 jàppal ñaata at la lépp di coono téewul ba mu jeexalee étape yooyu yëpp toog njaareem la wax ne nabbahtukum maan ala kaddin hmm. bada lii qabla an aroridan mu abada hmm. damay wax ne hmm. ba muy def déclaration fekkoon na boobu xam-xam daje ci moom personnalité diine ak ay qualification daje ci moom bu ca yemoon doon kilifa mu samp ngir yoonu irada mu yoonu murid ci déclaration boobu ba 1995 1895 bu ca yemoon di kilifa mat sëkk 1895 dem ci géej gi ba ñu àgg 1902. Mhm. mu ñibbi si gannaaw juróom-ñaari at ak i coono. 1903 mhm. ñu yóbbu ko Mauritanie. ba 1907. Mhm. 1907 ñu yóbbu ko Thiéyène ba 1912. 1912 ba 1927 diggante bi lépp di coono. allahu akbar sikkut ni dem na ci yàlla ay pays yoo xam ne pays yi ngërëm. pays yi leer pays yi may yoo xam ne lépp ngi fi moom lépp daje fi moom. lu ko neex mu yombal ko maye mhm. waaye téewul ci bind ci téerin bi nga xam ne mhm. ci état bu mujj boobu la ko bind yare mu wax ne nabbatukum maan ala kalbin mhm. mboole seen maa ngi leen di yee ci nangoo sonn ala këddin man kat bada lii qabla an araari dal mu abada laata may am ngërëmal yàlla ak fii mu man coono laa gis dëgg la kon moom ah, yitte la woote yittel ci la sosu yitte la jàngale yitte la yare yitte la dund waaye it la woote moo tax xeetu bëgg noflaay ak ak ak ak bëgg lu yomb ak di wut lu nooy yoon yoon bu gën a gàtt te gën a gaaw yow yooyu sëriñ bi xamu ko ak am njàngaleem waxu ko ci ak dundam feeñalu ko ci ab yareem xamuñu ko ci kon nag loolu mooy suñu digal dun mooy nangoo sonn ndax yitte kat dañuy wax ne bu fekkoon ne fas naaru góor la soo ko waree mu yóbbu la ci biddiw bi ñu wax dëlluñ koy wax suraya hmm. kon lépp loo xam ne yaa ngi koy bëgg ci yàlla hmm. ak ci addina hmm. te war fasu yitte loolu mën nga ca àgg te sëriñ bi wan ko ndax fii mu àgg bisa mburéy bii dëkkam mburéy bii yoonu mburu wii mayam yu bari yi ku ne xam na ne meññant la moo xam ne moo la xamee kuñ yitte jëm ko wuteen dëgg la dëgg la waaw dëgg la jërëjëf Cheikh Mouhamadul Moustapha ci leeral yu am solo yooyu jëm ci yitte ju kawe Euh, li ma ci gën a jàpp rek te nga wax ko lépp am solo waaye mooy keroog bi mu defee déclaration bu rëy boobu suñu borom waxal ko ko boppam ne ko na yar ñi nga àndal ci yitte te bañ leen a yar ci jàng rek ndax nit mën naa jàng ba noppi manqué yitte manqué yitte moo koy jëlee fam ne yóbbu ko ci feneen fu neexul suñu borom damay fàttali ku wax Seydina Ali ja wa man talabal ula sahiral layaali képp ku bëgg àgg fu kawe nga bàyyi lal ya jugee fële euh, ma sa borom ñu ngi koy wax ci raaya Euh, jëri cataa iya sax xoqal euh, tajuful madaaji fi laylin junubuhumu naasina salma wa layla bil busharaati day dëpp waxi suñu borom ja itam tata jaafa junubuhum anil madaaji yad'uuna rabbahum wa tama loolu yitte dëgg moo leen ko moo leen ko may sëriñ bi jaar foofu jaarale fa njabootam waaye jaarale fa ñi ko topp sëñ Moustapha waxtaan wi am na solo trop waaye suñu ñaareelu laaj laataa ñuy tëj jotaay bi mooy yitte ju kawe gannaaw ba ñu ko leeralee ci sëriñ bi ak ni mu ko dundee depuis ak ndawam nan nga ñu koy leeralee nan la yan jeexit la am ci sëñ bi ak ñi mu yar ak njabootam ak ñi ko war a topp ak it buñ ko dundee ban résultat la leen mën a mën a jural lim jur moom ci sëriñ bi gis nañ ko wax naa ko mhm. Mhm. mooy may yàlla yi ak dayo bi mu àgg ci yàlla boroomam mhm. euh, damay wax ni dayo bi mu àgg ci yàlla boroomam baatil la boo xam ne moom rek moo ko xam waaye lii ko suñ boroom it defal mënees na cee natt ana ana fa ana fu mu àgg ci yàlla boroomam ndax wax na ne maa xuntu llaha fi ibadati allahu akbar wa maa xaanani llahu fi jazaa'i hmm. wala ni mu ko waxee waruma yàlla ba ma koy jaamu wallaay dëgg la waaye moom it waruma bi may fay dëgg la kon pay gi moo lay xamal hmm. dayub jaamu ga dëgg la kon fii mu àgg mool lay xamal da yëpp yitte ja nga xam ne moom la ko sàkkoo hmm. eh, noonu nag ci la ak njabootam gis nga njabootam li ko tàmbali Cheikh Moustapha hmm. ba ci euh, Cheikh mo Mouhamadou Mourtala hmm. njabootam gii fi nekk ba ci Cheikh mo Cheikh Mouhamadou Mountakha gis nga ba yu yitte ju rëy ji bu waxee nga dégg yitte bu jëfee nga gis yitte dëgg la te lii mu fi nekk ak lii mu fi taxawul ak ak ak nii mu delloo yoon wi ku nekk xam ne yitte mat na sëkk ci moom kon lii mooy meññant mhm. mooy résultat bi nga xam ne def na ko ci njabootam mhm. euh, ba tey nag mi ngi noonu li ma wax léegi euh, ñun yitte rek mooy suñu wàll mhm. yitte moo ñuy àggale fu nekk moo xam ci mbirum àddina la moo xam ci mbirum diine la moo xam kuy wut ngërëmal yàlla la moo tax loolu moom murit Euh, war naa doon ko laxasaayu mhm. war naa doon ko fees ak pas-pas mhm. Mhm. war naa koo xam ne du du yóotu mbir yu jege yomb yi waxtu woon yuutu la gën a sori te insha taala it la gën a sori bu ko yóotoo dana ci jot ndax am na ci misaal am na ci aw yoon am na ci njàngale ba noppi damay wax ne ci yoonu Serigne Touba bi la baat yi di soppi ko nekk ay jëf la baat yi di soppi ko nekk ay jëf te saa su ne loolu nga teg ci sa bët ndax mboolem lim jàngale ci yitte ci bëgg xam-xam ci toroxlu ci ci ci maslaa ci bëgg jàmm ci mhm. dëppale ay xol mhm. ci nekk benn ci benn kaddu yi am njàngale la moo xam ni ngi ko jàngale ci ay baat mhm. waaye boo dikkee ci yoon incha allah taala nga ko gis mu feeñ ci ay jëmm feeñ ci ay jëf waaw loolu moo yëggale yoon wi tey fu mu yëgg jërëjëf Cheikh Mamadou Moustapha ñu ngi doon waxtaane yi te teju kawe ak Serigne Touba nga leeral ko waaye jàngale ko ci façon bu ama am solo ñu ngi fàttali ne émission yi ñu leen di defal compagnie Serigne Seck moo leen koy may C3S ñu war ci ànd ak ay borom yi xam-xam yu wute tey ñu dalaloon Serigne Moustapha Diop Ndar di boroom xam-xam di gëstukat di jàngalekat aussi di bindkat di ko ñaanal gudd fan ak wér xam-xam bi rafet na lool jëriñu nañ ci te dañuy am yaakaar lool la ñu koy seetaan dinañ ci jëriñu Cheikh Moustapha laataa ñu yëkkati jotaay bi sa kàddu gu mujj lan lay doon nga jëmale ko ci ndaw ñi nga xam ne tey lu baax rek lañ bëgg wuti Serigne Touba dëgmal ko jàpp ne lu baax rek la yor naam lu baax la waaye nan lañ war a jàppee yoonam wi nga xam ne yitte ju kaw ci la yitte ju kawe ci la jaare ba ak agsi fii tey ana ban message ngay jëmale ci ndaw ñooñu tey euh, ndaw ndaw ñi il faut ñu am royuwaay wax ay repère bu jëkk mooy nga am koo xam ne ci moom ngay xool ci moom ngay tollale ci moom ngay topp ndax ku amul ku la gindi ci yoonu yàlla yoonu siraat mustaqim seytaan daal la alawte ku gindi la dëgg la ci aw yoonam dëgg la moo tax fokki ñu wattandiku kër-kër ji wattandiku xirte gu ëpp gi mhm. dellu ci ak dal te settantalaat mhm. ana li ñu suñu borom baaxee mhm. ci ay repère ci ay royuwaay yoo xam ne insha allahu taala buñ tollalee ci ñoom suñu addina dara du ci tardé suñu diine dara du ci tardé suñu alaxira dara du ci tardé kon li may jox ndaw ñi moom foofu mooy nuñ dellusiwaat euh, rek te wut repère mhm. eh, te nangu kilifa mhm. incha allahu taala mhm. loolu Euh, danañu jariñ mhm. jëriñ la am solo mhm. xanaa di jeexal di wax ni ñu ngi sant bu baax na kër gi euh, compagnie Serigne Seck euh, di C3S mhm. moo ko ñim àndal yow it di la sant bu baax ndax yaa ngi jóge Ndakaaru yàgg sa équipe bi macha allah dikk ngir jël si waxtaan wi te nun seq nañ kóllëre seq l'islam seq alquran maanaam bu ngeen nu woowoon foofu it ci studio ba daa dox ba dikk kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ñaan yàlla dool na ndimbalal biir eh, ñu fekk màggal gi te weesu ko amiin lu rafet yàlla nangu ko barkel ko amiin yaa rabbal aalamiin ci ay ngëneel amiin eh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi émission boobu lañ leen amaloon jëlee leen ko fii ci Touba dalaloon sëriñ Moustapha Diop Ndar di borom xam-xam di doom ci sëriñ Mor Diop mi ngeen xam sëriñu daara borom alquraanul karim rahmatullahi alayhi in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillahi rrahmani rrahim fastamsik billadi أوحي إليك إنك على صراط مستقيم المتقين